Jungle. waaw li ko sabab mooy asma mouvement moo ko sabab. mois mooy jàppale askan bi jàppale jigéen ñi jàppale sëñ bi. jàppale sëñ bi. waaw Moustapha bu ma dem ñu ne man Moustapha dafa ci yoon dina jàppale jigéen ñi. comme Mourou Moussa ma ne ñaanal ñu ne fekk jàkk yóbbu nii. waaw xam nga jigéen ñi dafa am façon façon boo jàppale ndax ku am 40 ans wala 30 ans wala 50 koy gis ci li ma la mooy jox lu xale lu ma faat calam bu ko may xaaj bu jënd jaayam ñu nga xam ne toll seen diggante seen doo digg doole mën a liggéey wuti seen profit euh, wuti leen fu ñu xam ne boo xam ne na faa mu war a baax mu jëriñ euh, xam ne ñu si daara bi bu yàlla dogalee leen am lu ñu bëgg nan am boo xam ne nag lañ ko defee am télé bi de dañoo takk booloo doon benn gëm li doon jàmbaar yoo xamante ni suñ nee waaw duñ ne déet te am yaakaar ci a Diop Moustapha Diop ndax sonn nañ ci waaye biñ déggee ñu tudd Moustapha Diop am yaakaar bu baax ndax dañoo gis li nga xam ne moom lay liggéey Sénégal te yemale ko lu ko gëm dëkk Sénégal la soxla Sénégal ñor ko mu di liggéey foo xam ne moosul Touba te jéggi Touba ñu ne amu fi baas ci Touba ñun ñu taxaw daal di dañ koy jàppale te yàlla tax ak yeneen tamit sëñ Touba min bokk ndax ñu ngi dëkk Touba ci daaru xudus bu jege gi ñu tuddee ko sëñ Modou Moustapha taaw sëñ Touba te murit moom lépp loo ko bëgg a am woo ko ci sëñ Touba dem ak jigéen ñi hmm. xanaa fas yéene bu yàlla jàppalee li nga xam ne moom lañ bëgg ci Moustapha Diop buñ ko amee hmm. liggéey ñu def joxal ay formation ñu mën di liggéey suñu biir kër di tedd ñoo suñu njaboot taxaw suñuy borom kër yeggale suñu liggéey ci ni mu ko bëggee ndax coono yi na xat yi métti na am na loo xamante ne lii jigéen mënu ko te waaye nag fu ñu jàppale leen amul kon fu ñu jàppale ñu gees suñu jigéen ñi ñu àndal moom la bëgg